nga nit day kilifa boo toogee ba sa kilifa yëkkati kàddu da mm-hmm. ngay ci gannaaw ne amatuma lu ma wax ci àddina man ko la xamal la barka rasulaay ngeen ko dégg mu ne leen doom ak yaay la dara xewul mm-hmm. yaay doom la rek dara xewul seen ànd bi ku ko nar a yàq yàlla na nga dee kanam rek. Eh, dégg dégguma wolof nag sama wolof leerul. kii mooy Amélia artistes yu mag yi ci réew mi yépp moo leen di maquiller. tournée internationale la nekkoon ak artiste bu mag ci réew mi. man sama bëccëg gi moo tax mu daw ñëw moom day wax ci man man maa waroon wax ci moom moo teewe ma. yow ma jàppee ba tey sama mag la. sincère la def ci man ba ñëpp naan ma dangaa nuruk ñoom barki Cheikhul Khadim ñi fi nekk ñëpp a baax fii ñi fi nekk ñëpp sama ay mag lañ barki sëriñ Touba mais ñoom dañu ma bëgg mais gis nga kii da cee raw moom ndax liggéey télévision dafa metti kuy génn chaque jour télé bëccëg bu ne million ngay sol bëccëg bu ne million la ndax boo bëggee sol yére sol daal defar sa kanam takk bijou da nga yàq lu bari ci xaalis mais moom da cee jàpp kii du kee du keenee du kële kii Amélia la Sénégal ñëpp ko xam ndax artiste ci réew mi yëpp moom moo leen di maquiller kilifa la ci réew mi macha allah Juma Jeng jaxate la tàggatool léegi doon ko maquiller da koo taf tafee sax ndax sama lii mère Juma Jeng ne ko poté sama doom la dawal barki Sëriñ Touba moom lu mu wax ci man rek na xam ne man maa ko gën a bëgg ndax man moor mënu ma ànd ak ku sincère lu man duma wax ci internet parce que ñii li ñu am man dama ko am téléphone la ñu yor ak caméra man ma am télé téléphone caméra man yàlla li mu ma may bariwul kum ko may te maa ngi ciy sant suñu boroom ak samay waajur xale yi téléphone la na am man maa am téléphone télé xale yi benn bëccëg la ñuy am man góorgóorlu naa ba Youssou Ndour jox ma juróom-ñaari bëccëg lundi mardi mercredi ba jeudi dimaas heure bu ma neex liggéey kon man duma waxantu ku ma ne baax nga baax nga te ku ma àndal ku baax nga barke Cheikhul Khadim damay ñaan ñi fi daje ñëpp yal na yàlla fay leen di ñaanal sama di ñaanal sama jëkkër ji nga xam ni li ma ci namm rek laa bëgg yàlla defal ma ko ci parce que mënatuma di wax di wax di wax li ma ci namm suñ boroom xam na ko yàlla na ma ko ci yàlla defal ci barke seydinaa Muhammad ndax ba muy ñëw soxla woon naa ko torop li tax ma naan kii mooy Niclaire Fall moom xam na man xam naa yàlla xam na. parce que période bi muy ñëw guerre la ñëwee moo tax mu tuddee ko bomb te bomb ku ko am ci guerre rey ci nit. Poutine Poutine moom du jigéen. ndekete naar bii du naaru neen yooyu noonu. du naaru Amérique donc. Poutine la waa Poutine la. aja ami. voilà donc dafa may kàddu yu ma bëgg sànni. Euh, parce que ba ñu dalee liggéey ak tey je pense que ça doit faire six ans. six ans 2018 ba tey. 2018 la 2018 la ba tey. sama diggante ak moom nag aw ma dara lu ma ci naxari euh, Amina ba ma koy xam boobu sama tur dem na ba pare. Mhm. mu wër ma ba gis ma waaye ba ma ko xamee ba tey ñu dal liggéey ba tey euh, dëgg la sama tour demoon na de ñépp ñëpp xam ma xam kuy Amélia xam ne Sacré-Cœur sama liggéey bi fonk ko lool nag bu mu ñëwee ma commencé dam tàmbali liggéey ak moom. dëgg la sama tuur sori woon na sama liggéey gën na ko fësal tey boo gisee ma naru ma woon wax sax de mais sànq ba tey sama snap ma wax ci euh, digganteem ak euh, soxna si naan ma naa ci dox jàmm te yàlla ñoo tin xam ne maa ngi siy dox jàmm parce que Viviane ñu ñëpp lay liggéeyal Mor Thiam day liggéey ak yow di liggéey ak Njole di liggéey ak man mu nekk ku ma fonk lool ku ma respecté ndaxte liggéeyal na Sénégal euh, li mu def Sénégal kenn laam laameetu ko di ñaan euh, sa digganteem ak Amina bu ngeen ma ci mënee jàppale ngeen jàppale ma ci ñu dox mbokk ñu dox ko ba mu sotti parce que cofeel bi Amina am ci Viviane man ump ma respect bi mu am ci Viviane ump ma seytaane dafa bari doole nag seytaane bëri na doole. wuyu ma foofu sa jëkkër. maa ngi ñëw. wuyu ko mhm. wuyu ko rek wuyu ko. dafa ñaan. nee na bëggul woon wax. ci ci dagg yi mais. c'est une chose boo xam ne man je l'ai souhaité wax naa ak moom ba pare ci affaire boobu man dama ñëw pour yokk ñëw mu pour wàññi. mooy noonu so um, danañ juboo incha allah kon ko bëgg nga ko man lii laa bëgg ci ay nit gis nit wax sa baaxu moroom du yàq sa baaxu dara sa baax yow dara n'est-ce te da ngeen wax ni fii yéen ñëpp dangeen yàgg ànd affaire yooyu xam nga piis rek jàmm rek comprendre nga lépp loo xam ne dafay yàq nit mun ko defar boo ko defaree di ci am yàlla dañ la ci naw yaa ngi comprendre fii amul géer amul géwél amul booy yi nii grand yi nii ñëpp benn lañ gis nga ñu yore ay téléphone tey dina ci am koo xam ne yàlla dina ko dimbali mu am télé lu leer laa lay wax nii gis nga ki gën a tuuti fee toog di def benn affaire di ci gis boppam ah yàlla dina ci dimbali nit dans deux ans trois ans mu ne fiif est-ce que xam nga dem laa yàlla moo yor wërsëgam di ko jox ki ko neex gis bi may jóge fii maa ngi maa doon dund di tedd ma dem Amérique mais dama ko gëmoon mu nekk sama ambition lu ma bëgg teg sama bët foo xam ne ñi ma fekk si dëkk bi ñu juddu fa li ñuy yore laay dem poqati te yàlla dimbali na ma ci namuma dara namuma xaalis namuma or namuma jamaa namuma oto bu rafet fii dara senegal li fi am nii ay game la xam nga game ñii dañuy play ñii di play gars yi di kii nii fii affaire yooyu mais gis nga fële ah foofu mooy reality bi reality bi mooy loo fa jaay gis ku ko jënd minute amul xaar boo fa jaayee rafet gis ku la gun a rafet boo fa jaaye ñaaw gis ku la gën a ñaaw mu maanaam looy doxal minute nit romb la ni la maaloo mën fekk xoolal danga koy gis ak téléphone mu taxaw ni téléphone di caméra wala di filmer nga def ni yorul dara mën na la jënd moo tax gis na mi ngi noonu nit doo xeeb sa morom quoi ci gàttal bu dara yàqoo dañ koy defar man Malick man Malick Fall man ma kenn mun a ànd ak ku nekk mais dama xam sama bopp xam fi ma jógee xam fi ma jëm xam may kan man duma ma tux man du ma naan am naa leen mooy mun naa def lu ma neex ci àddina fi ma toll nii du ma ñàkk ba may dee yàlla dimbali na ba pare mais doxeewu ma ko jëfeewu ma ko su ma nekkee sama kër kilot laay sol t-shirt nekk ak nit ñi ci mbedd mi sama doom mën nañ ma seede parce que falaa màggee falaa yaro ak ñoom bëgguma ñuy gis yenn yi defe ne man damay ñëw jaay leen maanaa d'accord nag sama kër am na ay xam nga yaa ma gën a xam mais pour protéger sama njaboot la parce que man nekkuma fa gis nga nit day xool xam ni fii yaakaar na fi dara mu dem toj ko donc dama leen di protéger mais gis nga li nga def nii yàlla na ci yàlla fayan ah. yàlla na ci yàlla defal yiw ak succès bi nga ci bëgg ama kontaan ci jëf ji ngay jëf nii yàlla dina ko eggale mébét boobu nga eggale damay seede rek loo xam ne moom wax nañu ko téléphone mu am mébét boobu ci diggante naa Poté ak Viviane ndax ku ne xam na ne Amina Poté mi Viviane ay bakkanam xam nga dañuy waxal yàlla rek comme nit ñi toog nañu ku nekk xam na ne Amina mi Viviane bakkanam ci lu ñu fekkee vivianit it bañul Amina Poté mii da ko bëgg seytaane fu mu xaju rek lay dugg yàlla mi mën a boole yàlla na leen boole waat ci kàttanu yàlla ñu ànd ci bi ànd rafetee ndax ñaar ñu bëggante rek noo yéeroo te yow lii nga mébét ni Amélia bugguma woon tëb tëb wax ko nii te tombeek laajuma kii laajuma kii waaye moom mii junj na ko ci téléphone te xam na na loolu bala moo génn dëkk bi dina ko dox. ndax Mor dem leen la gis ngay liggéey Viviane du dëgg tey ñu gis kër Amina donc nitu Viviane nitu Amina la. ci seef fekk ma fii et eh, leeral leeral point mariage kii e ngale eh, an kay xam nga lu tax kii nag ndekete du maquillage kat kese mani sone medun mani kii ndekete du kii ndekete du puudar kat kese du defar katu kese kese kese ndekete gis nga ku la dàqa mag yi su jigee yàlla tuuti dàq laa dox lu baax ci àddina ndax rafet alalu yàlla la yàlla moo koy tànnal boppam xool ko ko neex mu jox ko loolu nga wax akay dëgg li nga wax léegi nii akay dëgg Amina mii laa njëkk xam Viviane te musuma dem teleem Viviane xam naa ko bu yàgg liggéey bi ñu boole mooy garab ci kaw lay fekkantee dëgg la ay nag muy nit ku baax muy nit ku baax Amina mii nag dañ koy takk takk ba mu dëgg kii moo ko takk kii ko takk ànd ak ay mbokkam ñëw di indi bàgg bi yow nga defar Amina ba Amina gën a jongama yal na yàlla laf cat diggante Viviane ak Amina Kumba Gawlo woo Yuusu Nduuroo ñëpp ay defaru c'est parce que li alaaji wax rek gem bi la rek na ñëpp ku ne naan ndox tëdd nelaw te toog dal bu ku nekk talee boppam kenn du jaxasoo kenn na ku nekkal boppam